Niger bi nga doon tudd léegi fa la ñuy dem foofule euh, takk der yi nga xam ne ñoo nekk ca bopp nguur gi ñu ngay jéem a indi ay leeral ci frappe drone yi euh, faat juróom fukk ci ay civil voilà ci seen i wax naata dañu doon euh, amal ab opération boo xamee ni ay jihadiste la ñu doon xeex ca wetu frontière Burkina Faso foofu nag lafa fa bi tiré ay drone ci ba mu dal ci benn village bu ñuy wax Thiawa Thiawa nag. Euh, ña fa nekk euh, dund nañ lu doy waar ndaxte drone yooyu euh, ci lu ñu jàpp mooy faat nañ fa lu ëpp juróom-benn fukki nit donte communiqué bu junte militaire bi nanguñu ci wax muy lu doy waar loo xamee ni xew na ci samedi ji fële ca Niger Anthony Blinken moom ñoo ngi koy xaarandi tey ji arabi Saoudite ak Israël ngir rek fexe nu ñuy bañee ba xeex bi nga xamee ni moom moo am euh, fële ca Gaza euh, gën a law gën a doy waar ci jamono joo xame ni Euh, ministère de la santé bu Hamas dañu xibaar ni que euh, ñaari taskatu xibaar faat nañu leen euh, ci bombardement Israël yooyu kenn ki di Moustapha Touraya nekk ab vidéaste pigiste keneen ki moom journaliste bu Al la moom tamit ñàkk na bakkanam ci cong yooyu nga xamee ni Israël mi ngi koy amal ca Gaza fële ca Brésil moom Lula bëgg na célébrer tey ji bi nga xamee ni euh, songoon nañu fa euh, yenn ci nga xamee ni ay bërëb yu stratégique la euh, nekk ca Brésil te ña defoon di ay jege ñaalo président bu fa nekkoon di Jair Bolsonaro ñu jàpp ni nag ñoom ab coup d'état la ñu bëggoon def ginnaaw bi Lula gagné élection yooyu ba tax na jamono ji yoon mi ngi def liggéeyam am na si ñoo xam ne sax jot nañu leen daan fukki at ak ñett fukki at ak juróom ñett kasso ñu jeexalee ko ci wàllu cinéma ak euh, film américain bi di Oppenheimer bi nga xamee ni euh, moom moo gagné euh, Golden Globes di xamee ni daal méngal ñuy méngal comme festival de Cannes waaye moo ko ëpp dayoo nag fële ca Amérique la nekk film boobu nga xamee ni ci anam yi ñu defaree bombe atomique ci lay dikkaat ak réalisateur bi di Christopher Nolan nga xamee ni gagné na compétition bi waaye film boobu tamit euh, moom moo gañewaat yeneen prix te prix yooyu euh, bokk na ci euh, meilleur réalisateur meilleur film dramatique ak meilleur second rôle soxna Naata. merci beaucoup cher Tidiane Diawo ci xibaaru bi ci réew yi alors bu leen fàtte itam document bi ñu leen nar jagleel ci kanam tuuti incha allah ak accident 6 kilo bi def na benn at léegi ñu soobu ci météo bi. Et c'est aussi un plaisir de la retrouver ce matin.